que candidature moo la soxal. voilà ku ci ne ci ñoom. sa candidature moo la soxal. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. donc ils avaient utilisé une un nom boo xamante ne amoon na aura qui est un homme politique ñu utiliser ko pour exister sur le plan politique. fi mu ne nii chacun travaille à récupérer cet électorat. te tey sooy defee constat la yeewi askan bi ñoom ñëpp. ñu ngi sur le terrain politique. politique waaw ñi ngi ñi ngi ci caravane ñi ngi ñi ngi uti parrainage ñi ngi def démarche bi. je prends du recul ah nga may ma ko nag quoi or le combat politique ne devra ne devrait pas se porter comme, comme ça. Mm-hmm. Ce que le le le le M23 avait réussi dans le temps. Dans le F24 F24 ko réussir parce que ku ci ne. da nga jël sa ambition jiital ko. Mm-hmm. bàyyi bàyyi bàyyi ñeneen ñi. et ça pose problème sur sur le sur la démarche ça pose problème moo tax je suis d'accord que ils ils vont vivre pire. Mm-hmm. que ce que Ousmane Sonko a vécu et si nous non ñun jëlu ñu ci garde ñun ñëpp mm-hmm. ñun ñi nga xam ne fi ne nii nous sommes les les candidats mm-hmm. qui sont contre la coalition Benno Bokk Yaakaar di nga bë bon campagne kenn mënu ko tere mais di nga dem bëgg def ay visites de proximité dans les localités ñu xañ la ko mais il faut que les gens prennent garde de cette situation xam ni say mooy am ndam Mm-hmm. et ce que les jeunes ont réussi mm-hmm. dans leur mobilisation de sonkorisation yéen yéen léegi yéen a ngi a comprendre jaay doole bi gars yi di sur cette situation mais au niveau du stade li ñu gis jaay doole la parce que jëm nañ stade bi sax foofu da nga fay teg sa baaram parce que ñu bëri ne da ngeen di victimiser non non non gars yi maa xamuñu woon maa stade mhm. Mamboy ko xam ko ko xam-xam ni équipe nationale suy football kenn mënu ko tere dem stade day bàyyi lépp lu mu jàpp de ba ba mu jaral ko mu leen di wër partout dans le monde pour dem seetaan vu les relations qu'il a avec ces jeunes là maintenant dem na stade jaabanteel woon nañ ko ay tribune te moom xam na ticket bi mu jënd jëkk jëndul ticket VIP la jënd ñu jaabanteeloo ko un adjudant est maa ngi taxaw ma ne ko on a reçu des ordres comme quoi que nee nañ bul dugg ci stade bi du ministre des sports la ñu wax. ah ministre nee nañ bul dugg ci stade bi ñu rebrousser chemin tranquillement dem suñu yoon parce que xam nañ ni duñu xëccoo duñu xiiroo duñu ŋaayoo suñu problème xam nañ nuñ koy regle parce que aussi euh, foofu mun nañu wax ni jaay doole la maintenant sur les procédures suñu waree dem fenn dinañ aviser donte ba may dem Ranérou j'ai pas avisé j'avais une seule benn oto laa yoroon ah. boo yoroon ñaar xawal ba xam ndax di nga jàll. waaw su ma yoroon ñaar est-ce que dinaa jàll. est-ce que dinaa jàll maintenant su ma jàllul c'est parce que j'ai pas informé mm-hmm. mais li may wax rek mooy l'opposition sénégalaise. l'opposition classique bi fi nekk euh, radicale bi fi nekk dañu fose combat bi dès le début mm. parce que seen combat bopp lañ jëkkati combat Ousmane Sonko taxu leen jóg teg ñoom ñëpp lu ñu am lépp Ousmane Sonko moo leen ko may. Mm. Mm-hmm. li ñu am lépp Uh-huh. Ousmane moo tax ñu am ko. ku ci nekk député. Ousmane moo tax nga am ko. ku ci nekk maire Ousmane moo tax nga am ko parce que il n'était pas candidat pour. boo waxee loolu est-ce di réduire effort ñu bëri def nañ ko. non fait aucun effort par exemple je ils n'ont fait aucun effort. Ah, man may wax. ils n'ont fait aucun vous n'avez fait aucun effort. day wax loo neex. vous fait aucun effort. xam nga lu tax xam nga lu mais ma tuuti bàyyi ma terminer rek xam lu tax. département bu mu jaar. waaw wala commune bu mu jaar commune boobu récupéré nañ ko. les jeunes ont voté massivement ont voté massivement. je te donne l'exemple ba mu jaaree Bambey la Bambey basculé. Mhm. parce que j'étais à Bambey. a perdu des communes à Bambey. defal ndànk rek beaucoup de communes. j'ai dit j'étais mhm. li tax ñu perdre yeneen communes parce que duggul ci biir commune yi. dañuy mhm. waxtaan. j'ai fait bang moment bi mu fay jaar maa ngi Bambey. pour porter la candidature de Benno Bokk Yaakaar. mais ba Bambey di basculer c'était le lendemain bi nga xam ne jaar na fa guddi gi tardivement mm. parce que sooy def lecture politique nga gis mbooloo mi topp nga gis mbooloo bi ko topp cette jeunesse là bu ko topp mm. mu wóor na ni active yi suñ ko traduire dans les urnes mm-hmm. réalité lay doon mm-hmm. mais attends les gens l'ont exploité nañ ma baalaaxan ils l'ont utilisé oui ils l'ont utilisé pour exister tey il est dans une situation yàgg naa ko wax bu kenn yaakaar ni je suis dans cette situation bon dama ne tey il est dans une situation gars yi ñu ngi lekk seen ginaar toog ak seen seen seen wetu jeeg ñu ngi lekk seen ginaar or que moom mooy dund situation bi mu dund ils lui sont tous redevables. Mhm. c'est vrai. maanaam ñëpp a ko ameel bor. ñëpp a ko ameel bor opposition classe radicale bi ñoom ñëpp a ko ameel bor amul kenn kum ci ameel ñaar mais euh, puisque demee na noonu booy nañ am fulla ak fayda. ñu fay ko ñu ñu ñu ñu ñu taxaw xool nañuy def man loolu laa gëm. ok da nga da nga def sa analyse. d' accord jibril jibril may may may may ma waat te terminer foofu ma. non xam nga tax d' accord xam nga tax d' accord ma ak moom. Mhm. parce que am na zone yoo xam ne jaar nañ fa ak parce que man j' ai fait tournée yeewu yëpp laa def ak Ousmane am na zone yoo xam ne jaar nañ fa perte nañ mais am na zone zone yi gënoon a potentialité électorat bi am comme Dakar. ñi fi nekk bu ñu gagné nañ ko remercier Ousmane Sonko am na ñoo xam ne c'est des yoo xam ne du lenn dañoo ñëw gañewaat waat facilement mais dama bëgg xamal ne la Ousmane dañ ko yàgg avertir parce que politique gu Sénégal dafa am nu mel gis nga bu fekkee dañ ko siq ak ay gars yoo xam ne dañ ne nañ bokk. naa bokk c'est-à-dire que naa bokk rek Ousmane quand on disait que suñu liste député biñ ne Khalifa Sall moo ñu jaay il nous a attaqué ma ne ko yaa ngi liggéeyal ñoo xam ne conséquence bi sa kaw lay këpp. parce que ñoom ñëpp nga bokk 2024 sans les arrange pas. Hmm. te bis boo nekkee si lëndëm lëndëm danaan daw wuti Sénégalais pour récupérer li nga yor parce que boobaa ma ne ko Pastef bii di nga ko juddlu mais boo otu du la jëriñ c'est-à-dire que dafa am fenn foo xam ne mooy damay wax benn affaire yow yéen da ngeen may bëgg jaaxal nag yéen waa kër Mame Boye Diao yéen Benno Bokk Yaakaar ngeen bokk bokk ci bilan bi bañuma ko bokk ci ñoo xam ne yàq-yàq réew mi ak jaay doole bi yéen la. bañuma ko waa tey bu ngeen ñëwee tey du ñu jéem a wax ni opposition nga nekk mais fan la Sénégal jëm gis nga nit da ngay assumer moi je ne vois pas que ni gis nga nit boo nekkee ci dara da nga koy gëm. ma ko de non dama sànq dama lay déglu dama ne la non dama la déglu dama ne la man dama gëm non non dama lay déglu xam tax ma déglu la dama ne man si je vois un membre am na si droit euh, présente mais leer nañu ko deux pour cent ko am il le sait yow xam nga ko moi je le sais daf ko leer parce que d'abord xoola du taxaw bi du préparation bi du pare bi c'est des candidats yoo xam ne par circonstance la man je dis la vérité ta vérité juste ñëw même bu dee nekkee sama vérité sénégalais yi la munoo bokk naan ci ñeex yi lekk ci cere ji ñëw xëy ne ñële baaxuñu ñoo baax il faut arrêter gis nga ma wax la benn affaire yéen fi toogoon di tagg Macky Sall ànd ak moom ñool ñool yeeg ñu geen def ko assumer leen ko xam nga la mooy problème mu Sénégal mooy problème opposition bi lu ma leen ci wax nee naa leen nañu moytu ku jóge fee rek ñëw bokk si ñun. Eh non bokk man nañoo ñoom sax seen biir. non bokk ma ci yéen de man bokk ma ci yéen je ne sais pas su jógee si ñoom sax mën nañoo am il faut qu'on fasse très attention je dis à l'opposition que ñoom lu ñuy cherché faire ba nekk P ak 2 loolu la ñuy cherché à travailler la coalition Benno Bokk Yaakaar mais ça ne passera pas non non dama bëggoon dama bëggoon non non le débat le débat mais mais je vais te dire da nga wax ma déglu da nga wax ma déglu na nga nangu rek souffrir un Mame Boye Diao je le respecte mais nag attention yéen ba ngeen fi nekkee di xeex ak ñun di ñu yóbbi kaso di ñu dem ak yëpp où était Mame Boye Diao où était la politique et la vision de Mame Boye Diao bi Macky Sall di def yii ku ma ndey am ma ndey ak ku ma amul ndey u était Mame Boye Diao bi caxat-caxate yi amee ci ci bande beeg yooyu où vous étiez dama ne la mënu leen ñoo nax je vous dis que ni gis nga yéen waa Benno Sénégal bu ñu mënee sanction loolu laa waxoon en 2012 nee naa leen Sénégalais yi mënuñoo sanctionné mënuñu fal folli lañ mën système bi boo ko xeexee da koy dindi ba mu jeex takk indi beneen loolu mooy tax affaire yi mën a dox mais li ngeen bëgg yi ngeen di def yéen waa bennoo mooy booloo ëllëg mu chef de l'opposition génnee si yéen mais nous nous vous comprenons yéen itam vous cherchez l'électorat de Sonko vos explications il le cherche non moom booy électorat Sonko lay wër non moom lay wër il le cherche en charmant les gens de Sonko